juróom ñaar fukk ak juróom boroom ndam li asalaamaaleykum yéen ñi ñuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw sunu mbégte rey na ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission bi ñuy tuddee yoonu njub ci njàng mi weesu ci sunu gëstu ci téereb linjil déggoon nanu ni almasi bi yéesu ubbe woon bëti gumba ak judduwaale ga dara tewul yeesu ndaxte mooy ruuwu yàlla gi feeñ ci kaw suuf ci bindu nit looloo taxoon yéesu mënoon a noot bépp doole ju nekk ci kaw suuf ngelaw li ak géej gi rab yi feebar ak dee mbooloo ma doon na ko laal tey teg moom waaye lu ëpp ci nit ñi ràññewuñu ku yéesu doon ci dëgg-dëgg dañu ko teg ab yonent waaye ràññewuñu woon ne matuk yàlla gépp dëkk ci moom xamuñu woon ne yéesu mooy ruuwu yàlla gi ak xolu yàlla bi di boroom ndam li jóge asamaan waaye ci sunu njàngum tey bu soobee yàlla dinanu gis ni boroom bi yéesu feese woon ak leeraayu ndamu yàlla ak ni mu ko wonee ci diir bu gàtt keroog ba mu nekkee ak ñett ci ay taalibeem ca tund wa loolu moo waral sunu njàngum tey mi di tudd boroom ndam li léegi nag nanu dellusi ci linjil bu sell bi mbind mi nee na benn bés yeesu beddeeku mbooloo ma di ñaan taalibe yi nekk ci wetam mu laaj leen ne nit ñi ku ñu wax ne moom la ñu tontu ko ne am na ñu naan yaa di yaxya ñeneen ne iliyaas ñi ci des ne yaay kenn ci yonent yu jëkk ya dekki noonu yeesu ne leen waaye yéen ku ngeen may teg ci kaw loolu simon pierre tontu ko ne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 lu ëpp ci nit ñi dañu ko teg kenn ci yonent yi ci kaw loolu yéesu laajaat leen ne waaye yéen ku ngeen may teg ci loolu kenn ci taalibeem yi di simon pierre tontu yéesu ne ko yaa di almasi bi doomu yàlla aji tund ci ci lu wóor laaj bi yéesu laajoon ay taalibeem laaj bu am maanaa la te faw ku nekk ci ñun tontu ci yow miy déglu tey kan nga teg yéesu loo xalaat ci moom ndax danga ko boole rekk ci yonent yi wala déggoo nga ak Pierre ci li mu wax ne yéesu mooy almasi bi wàcce asamaan ndax gëm nga ne yéesu mooy musalkat bi yàlla digge woon bu yàgg bés ba sunuy maam Adama ak Awa bàkkaare ndax nangu nga ne Yeesu mooy ki ñuy woowe doomu yàlla aji dund ji walla boog dangay wedd tur woowu te xeeb ko ndax li nga ko mënula dékku kan nga teg yeesu yow ni ngeen ko xame ba tey am na nit ñu bare ñuy weddi ne yeesu mooy doomu yàlla ji ndaxte dañu xalaat ne tur woowu dafay tekki ne yàlla amoon na soxna ba am ci doom waaye du loolu lay tekki ndamu yàlla weesu na loolu yàlla xel la kenn juru ko te moom jurul kenn wante loolu terewul yàlla tudde yéesu doomam ni nu ko misaale woon ba noppi su ma demee bitim réew dañu may tudde doomu senegal waaye loolu tekkiwul ne senegal dafa takk jabar ba am ci doom déedéet dañu may woowe doomu senegal ndaxte senegal la bawoo falaa jóge te noonu la itam ak yeesu almasi bi yàlla ak yonent yi dañu koy tudde doomu yàlla ji ndaxte ci asamaan la jóge laata muy juddu sax mu ngi nekkoon ca asamaan ndaxte mooy ruuwu yàlla yéesu yeeloo na ñu tudde ko doomu aji kawe ji ndaxte mooy kàddu gi nekkoon ag yàlla ca njalben ga di duppi ko ci yàlla te feeñal jikkoom ci kaw suuf ku gis doom xam nu baayam mel ku gisoon yeesu kon xam nu yàlla mel kon nag nu gëm ko wala nu bañ ko gëm yeesu moo di doomu yàlla aji dund ji ndaxte ci xelum yàlla la bawoo nanu wéy léegi ci li linjilu màcc ngir déglu li xewoon gannaaw ba piyeer waxee ne yeesu mooy almasi bi doomu yàlla aji dund ji mbind bi nee li dale ci jamono jooja yéesu tàmbale na xamal taalibeem yi war na dem yerusalem daj fa coono yu bare jóge ca njiit ya ca sëriñ su mag sa ak ca xutbakat ya ñu rey ko mu dekki ca ñetteelu fan ba bi mu waxee ba noppi piyeer woo ko ci pegg bëgg ko yedd ne ko yàlla tere boroom bi loolu du la dal waaye yeesu wàññeeku daldi ne piyeer sore ma seytaane bu ma xatal yëfi nit ngay fonk waaye du yëfi yàlla nanu xalaat ci loolu bala nuy wey ndax dégg ngeen li yeesu waxoon ay taalibeem dafa leen tàmbale woon di xamal ni mu wara deme yerusalem ngir tuur fa deretam ni sarax suy dindi bàkkaar mu ne faw mu dem yerusalem daj fa coono yu bare yu jóge ca njiit ya ca sëriñ su mag sa ak ca xutbakat ya ñu rey ko mu dekki ca ñetteelu fan ba noonu la yéesu yëgle woon ni mu wara tuure deretam ngir fayal nu sunu boru bàkkaar waaye piyeer mënuloon a nangu ne borom bi yeesu mi yor bépp kàttan ak bépp sañ-sañ ci àddina dina bàyyi njiiti yawut yu soxar yi ñu jàpp ko fitnaal ko rey ko loolo taxoon Pierre ne Yeesu yàlla tere borom bi loolu du la dal waaye Yeesu xamoon na ne tuur deretam ni sarax suy dindi bàkkaar a taxoon mu gane ci àddina looloo tax kon mu ne Pierre sore ma seytaane bu ma xatal yëfi nit ngay fonk waaye du yëfi yàlla Yeesu xamoon na lu tax mu ñëw ci àddina dafa ñëw ngir joxe bakkanam tuur deretam ju sell ngir bàkkaarkat yi ni ko yonent yàlla yépp yëgle woon bu yàgg yéesu ñëw na ngir li xaru tabaski di misaal mën a am ci moom ah mbokki déglukat yi sunu fàtte lépp li nu jàng tey ba mu des lenn na nekk li yeesu almasi bi ñëw na ci àddina ngir dee ni sarax suy fay bàkkaar bu soobee yàlla fileek njàng yu néew dinanu gis ni loolu amee woon tembe ca yerusalem ni ko yonent yàlla yi ak yéesu moom ci boppam waxe woon lu jiitu kon mbokk yi su amee ñuy yëgle beneen xabaar bu dëppoowul ak bi yonent yépp yëgle woon bu yàgg loolu mënula soppi dara ci dëgg gi jëm ci deewug yéesu ak ndekkiteem yàlla moom ci boppam mooy ki dogaloon deewug almasi bi ca bant ba te ndogalug yàlla du tebbeeku léegi nag nanu jëm kanam ba gis li xewoon benn ayubés gannaaw ba yéesu xamale ay taalibeem ni mu wara jébbale bakkanam ca yerusalem mbind mi nee na juróom benn fan gannaaw ga yéesu àndoon na ak piyeer saak ak yowaana rakkam yóbbu leen fu ci tunduwu kawe lool mu soppiku fa seen kanam xar kanamam di melax nib jant te ay yërem weex ni leer am ñaari nit di waxtaan ak moom mu yonent yàlla musa ak iliyas ñoo feeñ ci ndamu yàlla di waxtaane demu yeesu gi muy àggale yenam ca yerusalem piyeer nag daldi wax yeesu ne ko sang bi bég nanu ci sunu teew fii soo ko bëggee dinanu fi defar ñetti mbaar benn yow benn musa ak benn iliyas waaye bi muy wax niir wu leer muur leen te baat jib ca niir wa naan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 bu leen nettali kenn li ngeen gis ba kera doomu nit ki dekki ndax jàpp ngeen bu baax li xewoon ca tund wu kawe woowu mbir mu doy waar la te neex gis nanu ni jëmu yéesu soppeekoo woon xar kanamam di melax ni jant te ay yéreem di ray ray weex tàll bay melax te yàlla wàcce woon na ay yonentam di musa ak iliyas ngir ñu waxtaan ak yéesu ci mbirum deewam ca yerusalem te gis nanu it ni aw niir wu leer muure tund wa te baatub aji màgg ji jip ca niiru wa naan kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa ame bànneex déglu leen ko lu waral loolu lépp lu taxoon yàlla def loolu lépp ci kanamu piyeer ak yowaana ak sak lii moo tax yàlla dafa bëggoon a jox ñetti seede yooyu firnde ju ràññeeku ne ci dëgg-dëgg yeesu mooy doomam ji mu fal te faaw ñépp déglu ko moom la mbind mi tëral bi mu naan ku teralul doom ji teraloo baay bi ko yónni ndaxte li jiitu tey yàlla waxoon na ak maam ya ci wàll yu bare ak ci tëralin yu wuute jaare la ko ca yonent ya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 nu ngi yégle mbootu xam-xamu yàlla mu nëbbu woon te yàlla dogal ko ngir sunub ndam laata àddina di sosu kenn ci njiiti àddina amul woon xam-xam boobu suñu ko amoon kon duñu rey boroom ndam li ci bant bi amen yow mi déglu tey loo xalaat ci yeesu koo wax ne moom la ndax gëm nga ne mooy boroom ndam li jóge asamaan wala boog danga ko boole rekk ci yonent yi ni lu ëpp ci waa àddina si bala nuy tàggoo tey nanu déglu ay jukki ci li ndawi yeesu yi di piyeer ak yowaana bindoon ci linjiil ay at gannaaw ba ñu gisee ndamu yéesu ca kaw tund wa nanu jëkk jàng sedes piyeer mu ne bi nu leen yëgalee dooley yéesu kirist sunu boroom ak ñëwam ci biir ndam sukkandiku woon ci léeb yu sësul fenn waaye danoo teewee ak màggam ndaxte yàlla baay bi sol na ko teraanga ak ndam te baatub aji màgg ju tedd ji jib na ne sama doom a ngi nii di sama soppe ci moom laa ame bànneex te nun dégg nanu baat boobu jóge asamaan bi nu nekkee ak moom ca tund wu tedd wa yowaana moom lii la seede nu ngi leen di bind ci mbirum ki ñuy wax kàddu dund gi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 yu ñu nettaliwul ci téere bi waaye li ci nekk bind nañu ko ngir ngeen gëm ne yéesu mooy almasi bi doomu yàlla ji te seen gëm may leen ngeen am ci moom dund gi yàlla na leen yàlla barkeel te leeral leen ci li nu jàng tey te ku bëgg a gëstu ci lépp li yowaana bind ci téeram mën nga nu bind nu yónnee la linjilu yowaana te doo fay dara sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. ba beneen yoon na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yàlla wax ca kaw tund wa ci mbirum yéesu bi mu naan. kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex déglu leen ko.